جاء جاء sama سمكاي مالم استشيك depuis les États-Unis d'Amérique Mike Côte west tey dama ñëw dafa leen benn ci Déthié Fall uh, Ahmed Aïdara Déthié Fall dañ ko gis mu ngi nii moom ak président Ousmane Sonko ñu ne président Ousmane Sonko dafa recevoir Déthié Fall Fall bi nga Ousmane Sonko di askan bi Euh, Déthié Fall mi nga xam ne dafa dem bokk ci Barthélemy Diaz ak euh, Anta Babacar Ngom seen coalition ànd sa sàmm sa kàddu lañ ko tuddee waaye Déthié Fall mun nañu wax ne sàmmul kàddoom ndax keroog ba ñuy def seen conférence de presse gisuñu fa gerte Déthié Fall gisuñu fa waa PUR est-ce waa PUR tamit dañuy dem recevoir dañuy dem rejoindre Sonko loolu tamit lu jara wax la comprendre nga léegi li tax ay dara ma tudd ko ci parce que Ousmane Sonko balaa ñuy wax ci Ahmed Aïdara nañu wax gis nga Déthié moo nekk nii balaa wax balaa ñuy wax ci Ahmed Aïdara nañu wax ci Ousmane Sonko ak Déthié Fall lan moo Ousmane Sonko def li Ousmane Sonko len rek tax mu def li parce que Barthélémy Diaz la bëgg wan ne maa politique ya yàqoon sama liste euh, yow ak Déthié Fall tey nga ne da ngay jëx xëc Déthié Fall tey nangu naa Fall ci yow am na nu muy demee sax man nangu pur ci yow kon Ousmane Sonko mo la gëna a xam ne Déthié Fall warkat la du ku ñuy àndal mais est-ce que la fin justifie les moyens pour am majorité assemblée bañ Barthélémy Diaz nek député est que jar na ko xëy na politiquement jar na ko waaye xale yi nga xam ne ñun Sénégal la bëgg defar defar jikko yi mënuñu def lu ñuy def xeex lu ñuy xeex pour pour defar jikko yi ba pare jaam yu mel ne ay Ahmed Aydara bàyyi woon Sonko bàyyi woon yow askan bi Ahmed Aydara moo ne woon yow askan bi seen date d'inspiration dafa jeex dafa jot ku mu neex demal sa bopp présidentielle tey Ahmed Aydara boobu mooy génn di wax yow askan bi Déthié Fall li mu def nii lu baax la dafa war a dellu ci yow askan bi te moom moo fi waxoon yow askan bi jeex na mu ne Malick Gakou moo moo ko def euh, euh, euh, député keroog gis ngeen ko Dakar Arena mu ne Ousmane Sonko moo tax mu nekk député vraiment ki opportuniste la bu jugee di wax ne waaye waruloo laaj poste waruloo laaj ah, laaj dara pour ànd ak Sonko Ahmed Aïdara amuloo looy laaj parce que yow ba nga demee ci élection yi avant daara nga jël yow ak Malick Gakou yéen ngi jël. avant daara ngeen am 6343 voix maanaam juróom benn junni nit ak ñetti téeméer ak ñeent fukk ak ñett rek géejuwaay ba mu daj ñoom ñoo leen woteel ak Sénégal ñoom ñoo leen woteel kon nga xam ne yow amuloo looy wax Sonko loolu Sonko nga ñëw bugg burux burux léegi léegi leen Ahmed Aïdara li mu wax ci euh, euh, ne c'est normal kii dugg lu mu tuddati gàcci euh, fa li mu def c'est normal xaaral xaaral ma indi leen commencement bi Nadir Cissé dégg ngeen dégg nga de. dégg nga. deuxième tour le meilleur candidat de Yewwi ñu jàppale ko. dégg nga. le meilleur candidat de Yewwi nag ah dañuy premier tour. le candidat de Yewwi. laa ilaha illallah. dégg ngeen ko dégg ngeen dégg ngeen jullit jullit wax ni wax ni si samaam bi bopp xam ne nga shérif nga Amadou Amadou John voilà soxlawul may may eggal yi voilà publicité bi sax dagg na léegi xaaral ma tegal leen lan la si Cissé wax ci Ahmed Aïdara moom mi nga xam ne moo fi waxoon ne ma moo fi waxoon ne euh, nu mu tuddati Malick Gakou mooy candidat am nañ déglu دنجن سفو وخنا دك دنجن dégg nga merci fenkat la ci politique dégg nga Ahmed Aïdara moo fi waxoon Malick gàkku moo ko fal tey amee ay dara moom moo ñëw dem Dakar Arena mu ne Ousmane Sonko moo ma fal Ahmed Aïdara moo gën a dangereux Gàcce fal man je préfère sax ñu jël Gàcce Fall parce que Ahmed Aïdara moom dafa bañ Ousmane Sonko bëggul Sonko parce que yow ku la def maire parce que Gàcce Fall sax sonkoo defu ko dara defu ko maire defu ko député mais yow Ahmed Aïdara Sonko mo la def maire def le député nga nga nga wor ko ñu né la bu présenter président de l'assemblée nationale nga né da ngay présenter président de national ñu né la dañu soxla sa sa sa sa sa sa voix pour jox ko Habib Sy wala Sonko ku muy nga né yow lolu doko def xam nga nga gëmoon ne bo démé ci présidentiel di nga am dara mais ba nga démé présidentiel avant ndaare nga jël yow Malick Gakou motax ñewetu lo wax léegi nga xam son Sonko nga ne léegi damay ñew sans condition ban condition yoog Malick Gakou sañ ngeen ñew ngeen ne da ngeen di imposer Sonko ne da ngeen di bok ci liste pastif lan la def Sonko lu mu def ba inviter len Dakar Arena Malick Gakou la tuddu tuddu la Malick Gakou la tuddu parce que Malick Gakou mom la mooy mappandoo Sonko Ahmed aidara bu jógee di wax mom alias mom mom sax Amadou jonne la tuddu tudd la ki wax Euh, Ousmane Noël Dieng ah bu jógee di wax woy sëtu yonent laa kàcc rek lay def man man sawaay démb sax damaa gént nekk moom ci benn conférence de presse muy wax ma génn ma ma ñëw ne ko yow sa bopp li ngay wax nii amul dal ci kawam nekkoo ko yow bëggoo sonkoo li ne ma wax ko comprendre nga waaw xeetu nit yu mel ne amee ay dara moo tax Sénégal du dem poste lay wër bu jógee di wax way ñii dañoo bëgg poste ñii usman Sonko nag moo moom Pastef waaye billaahi wallaahi taalaahi lu ko neex na def waaye nag xam ne ñii muy jël transhumance yii muy jël di leen xeexe politiquement mën nañ ko comprendre waaye pour pour bañ Barthélémy Dias nekk nekk député d'accord loolu xëy na gàcce faal jar mais ko mais Ahmed Aïdara moom ak Malick Gakou Gakou ngeen jël ko jox ko parole mu nekk ci Dakar Arena di di def self promotion koo xam ne mënu la indil dara géejawaay Ahmed Aïdara lan la mën a indil Pastef géejawaay yëpp ko mere maire boo xam ne liggéeyul deful dara loolu tok ci radio di def self promotion kok Sénégal lan la koy doyee nga bëgg a jël jox ko poste ah loolu dina tax ñun ñu mel ñun bàyyi Pastef bu ñu wara a bàyyi wala bok ñu waron duggé ci ci dootu ñu ko dugg parce que ñun suñu jaan wat si ah, ñun lu ñu bëggoon mooy Macky Sall jóge na fi comme léegi Macky Sall jóge na fi Ousmane Sonko bu fekkee bu fekkee ne nag lii lay defee politique di jël jaam yi di leen defal promotion ah gis nga euh, nas ñu mu wane ay Gumbala ay ay mam Diarra femme ay pas de croix Ahmed Aïdara ay gàccee faal ñoom ñëpp yem dañ leen war parce que bëgguñu Sonko ni ko si Cissé waxee bu fekkoon dañoo gëmoon Pastef dañuy ñëw ñu ñu seey ci Pastef mais gëmuñu Pastef seen bopp la ñu gëm dem ba ci biir xam ne ñu am dem dara ñu bëgg ñëw burux buruxlu loolu bu ko Ousmane Sonko defee moo xam mais ñun loolu ànduñu ci tey ànduñu ci suba nañ wax ne ci Sonko nee na dafa bëgg def benn débat moom ak Amadou Ba man loolu d' ci tey d' accord ci suba Sonko lan lay def ak débat di ko gën a jox doole vraiment kooku erreur la boo xam ne erreur bu mag la Amadou Ba bu fekkee na da nga am ay dossiers ci moom nga ne dafa sàcc xaalis nee nga fii fan di ngeen génne dossiers yi lan ngay toog ak Amadou di ko wax yaa def lii yaa def lii di ko may opportunité waa Fuuta di ko gis waa ñëpp di ko gis ah nga koy gën a jox visibilité vraiment loolu erreur bu mag la communiqué bi nga génn rek déjà di wax ne Sonko da nee nga da nga bëgg a débattre ak Ba loolu erreur la Ousmane Sonko bu mu naagu Ousmane Sonko bu mu nagu na def ndank ndànk soxlawul muy def euh, débat entre lui et Amadou Ba parce que yow ya ngay gëna a rehausser Amadou Ba sur le plan international yang ngi koy gën jox tur de facto yang ngi koy def chef de l'opposition bu fekké na Macky Sall nga bëgg wané doto chef de l'opposition opposition ñëpp xam nañu opposition amul Sénégal légui Sonko bëgg dundal opposition lolu ñun ñu ci tay andu ci suba xamuñu ndax dina ko def wala du ko def voilà mais ñun li ñu leen di wax rek mooy Pastef bu leen nagu génn leen ngeen def seen campagne ngeen fexe xalé yi bindu

ba pare du la créer problème Amadou Ba milliardaire la du nangu ku ñëw rek dugal ko kaso ah du mu tëddati ah, Antoine Diome du nangu ku ñëw dugal ko kaso euh, Macky Sall moom ci boppam du nangu ngeen yàq addunaam euh, général Moussa Fall bu leen fàttali dañu amoon benn amnistie est-ce que jàmmu Sénégal jarul ñu bàyyi yenn yi jàll. ah am na ñu ne Macky Sall kenn ko baal parce que dafa rey ay nit et cetera et cetera mais Ousmane Sonko ne def très attention parce que guerre totale bi mu bëgg euh, woo ci waa APR man damay ragal. en tout cas na gën a renforcer sécurité Bougane nag li ko dal moo ko def boppam parce que bëgg sonko sonkoolu ba tey yaa ngi nii ci Bakel nekk ci kaso bi di nga fa def dix jours wala lu ko ëpp tàngaay ba boo continuer di nga dem ba rey sa bopp yow doo sonkoo da nga nar a nekk li dal Mamadou Dia moo la nar a dal te Mamadou Dia sax ci dëggam la nekkoon waaw di ndar ngaa yàgg ci kaso bi sa danga nga li nit xaalis amatoo xaalis loolu la ngañ dem bu Touré wax ngay victimiser wu da nga dara dem kaso xam nga nga bëgg euh, politique euh, euh, léegi nag Ousmane Sonko war na leen seen coalition bi du dara ndax pur sax am nu muy deme mu génn ci coalition bi ñëw ànd ak Ousmane Sonko sëñ Moustapha Sy kon ànd sàmm sa sa sa sàmm sa kaddu la mooy sàmm sa kaddu waaw Sonko daal na def très attention jomaay li muy def ànd nañ ci il à l'écart mu ngi toppatoo inondation yi vraiment jomaay wóolu na Sonko Sonko mu ngi mu ngi déroulé mais Sonko bu mu naagu ñun débat bi ak Amadou Ba Amadou Ba du dara.

seen date d'expiration euh, jeex na nee na moom Malick Gakou candidat am lu ne wax ko tey nga ñew bëgg burux buruxlu lool duñ ci and voilà euh, ba suba benen yoon ba benen yoon merci laaj leen partager leen ñu abonné wul abonné leen merci monsieur Cheikh la